beneen poñ bi ma bëgg a waxtaane te foofu lay daanale mooy mbirum Ahmed Aidara dama ko dégg muy wax ci bu mel ni Papa Alé Niang dégluwuma lépp nag ay daggit lañ ma ci yónnee muy wax ci ay waxu xawma lan euh, jàppatuma sax wax ci que diw wax na ma lii bi ma ko waxee lee nee na El Malick Ndiaye moo ma ko wax moo wax ma wax ko waaye yamu ca ma ngay wax naan Ousmane Sonko lim ma ji sama benn député bi buñ ko soxlaa ma jox leen ko ndax dañoo soxla ñaari candidat vingt six te vingt cinq député la ñu am donc sama bos bi mu ngi muy vingt six de treize treize que parrainage yi kenn wax Ahmed Aidara moom sawaruma ci wax ay waxam parce que mas naa ko fay wax fii euh, yéen yéen ñi tey ko dal ci kawam yéen yéen doon dal sama koo ci boobu jamono mooy jamono assemblée nationale ba bañu war a moom mu ne candidat la Barthélémy Diaz ne candidat la Barthélémy Diaz moom it ba may dal ci kawam yéen ci sama kaw tey yéen ñi doon dal ci sama kaw tey ma koy def booba wéet naa ci man kott maa ko def ngeen may saaga Ahmed Aidara ba may dal ci kawam man kott maa ko daan def ngeen may saaga ndey tey yéen ñëpp yéen a ngi leen saaga ndey ñoom waaye loolu du lu bees may wax ne moom Ahmed Aidara mi ngi ñaari jeeg yore ay kàtt kàttam ci lan aw làmmiñam chroniqueur moom chroniqueur yëpp moo ci gën a xam Antoine Diome la nag moom Ahmed Aidara mi ba ci dossier Adji Sarr bi muy soog a jóg moom ak ah moom ak Antoine Diome ñu ngi ciy liggéey ay dara ak Antoine Diome dañuy liggéey amul dem dikk dañuy fréquenté bu baax a baax Antoine Diome waayu Ahmed Aidara ñoom ñaar dañoo bokk yu baree bari di ko dox ci suuf ci kaw Ahmed Aidara day yuuxu ni nekk ci suuf benn lañ waxoon naa leen ne leen moytu leen Ngoné Saliou mi topp Ousmane Sonko caméra am Antoine Diome lay liggéeyal waxoon naa leen ko fi xam ngeen ngeen may saaga ndey mi ngi suñu kanam Ahmed Aidara mi waxoon naa leen ko faale wu leen Ousmane Sonko ngemb ko di ko jox doole mi ngi suñu kanam man samay wax jalu muus la ndax waxuma ci bakkan waxuma lu ma neex waxuma lu la neex waxuma lu neex kenn utuma lu neex kenn amul lenn lu may wax loo xam dama koy wax pour mu neex diw ooma lu neex kenn man waxuma lu neex kenn waaye tamit utuma di wax lu naqari kenn li may wax yàlla moo ci sama seede ak njariñu Sénégal waaye du benn sénégalais bu tax may wax amul benn sénégalais bu tax may wax lu ko neex wala muy wax lu ko naqare amut moo tax damaa libre man kenn moomuma kenn dara fëkkul sama bët li ma fi ma taxaw kenn mënuma faa jële man kott baa fay taxaw ngeen dem ba arrache dellu si fekk ma taxaw fi du ma bouger yota parce que man ak yàlla rek a fa nekk faalewuma leen keroog ba Ahmed Aidara di wax naan candidat la ca maire ca uh, bureau assemblée nationale booba Macky Sall la ko yónni ñoom la doon liggéeyal pour que ñoom ñu mën a ñu mën ñoo xaaj Ahmed Aidara la ñu yónni jaarale ko ci Malick Gakou pour que Barthélémy Dias jaar fee Ahmed Aydara jaar fe ñoom ñaar ñëpp Barthélémy Dias ak Ahmed Aydara kenn mënu cee nekk planton xam ngeen luy planton mooy gardien bi nga jël ci kër gi muy arrosé fleurs yi di tëj buntu kër gi di tuuri mbalit mi ñoom ñaar ñëpp Barthélémy Dias ak Ahmed Aydara kenn matu ko ci Sénégal moo yàqu Ousmane Sonko tamit tooñ ñu Ousmane man daf maa tooñ Ousmane Sonko daf maa tooñ mooy fekk ay sagaru nit ay Ahmed ay dara ki ay Barthélémy Dias nga naan ay doomi ndey di leen seetee di nabb nabb ay sagaru nit yoo xam ne man Ousmane Sonko man man lii naka la ko mën defee ba ma koy wax ngeen daal ci sama kaw Ousmane naka la mën a fekk ñi gën a sagare ci Sénégal ay Barthélémy Dias nga xam ne tux yàmbaaki time jaga rek tey seen Ahmed ay dara nga xam ne seen làmmiñ la ñuy dundee amuñu benn métier ñooñu en temps normal un Sénégal normalisé normé et normal ñooñu gardien sax mënuñu ko nekk ci réew mi Ousmane Sonko di laabisoog ñoom Ousmane Sonko mooy sama problème c'est incroyable incroyable te jamono bi ma koy wax man képp maa am fit di ko wax yaa ma yow da ngay yàq da ngay lii ñëw saaga ndey kër kër te li may wax man dafa mel ni midi ci man man li may wax yàqin laa ci am anam fu mujj loolu tey est-ce que xam ngeen lan moo tax Ahmed Aïdara bi ko Pape Alé Niang interviewé barki démb mu wax ji mu wax lu tax mu wax ko Ahmed Aïdara Pape Alé laaj bu leer la ko laaj daf na ko Moustapha Dramé mi la ma ci liggéey boo liggéey ak Antoine Diome Mbaye suufu Ousmane Sonko jaar ci ndeyam ndayi Ousmane Sonko nga jaar ci moom ci téléphone ngir ñu mën a repérer Ousmane Sonko alal janga ci te boo ko weddee ma génne enregistrement teg Ahmed Aydara ba léegi tontu ko Pape Alé laaj ko ci laaj boobu au lieu que mu tontu ko ci foofu Ahmed Aydara bàyyi fa laaj boobee nga xam ne moo xew ci jamono bii barki démb lañ ko wax dem jëli xew-xew bu am juróom-benn juróom-ñaari weer ca assemblée nationale ba mu seqoon kook Siré Sy Siré am lu mu ci waxoon ne moom mag Malick Gakou benn lañu te Malick Gakou Macky Sall lay liggéeyal Ahmed Aydara jël téléphone am woo ko saaga ko ndey ko fu mu la gis rey la dama lay rey kooku dem porté ko plainte ñu dox ci ba mu bàyyi plainte ba. ñu laaj ko tey ne loo xalaat ci waxu Moustapha Dramé bi lay tuumaal ne yow da ngaa ànd ak Antoine Diome di coytu Ousmane Sonko ñu mettre la sur écoute ngay wax ak Ousmane Sonko jaarale ko ci yaayam Antoine Diome ak police secret bi yëpp di la déglu yow loo wax ci loolu dañ la koo tuumaal ki la ko tuumaal mooy kan mooy Moustapha Dramé te dalaa tëkku ne boo waxee mu génn say audio tontuwul ci loola mu ne fu fa ñukk bàyyi tëb wax joojee au mu tontu ci laaj mu bàyyi fa loolu dama indi wax yi daaw te waxi daaw jooju waxoon naa ci man candidature bi mu nekk ci assemblée bi pour jaay ñu moo tax ba mu ko defee Pastef patriote yéen ñëpp ngeen jóg léegi nag ñëw ngeen ba mbëkk ci mbir ba seen jëyi neewi xam ngeen ne Ahmed Aïdara nii àndoon ak Ousmane Sonko ku baax ndax ca capitaine Touré interview ba ñu defee woon ci aji saar mbirum Adji saar ba capitaine Touré wax complot bi yëpp nga xam ne loolee su génnoon procès du am la capitaine Touré wax ca Ahmed Aïdara bu ñu ko tegoon intégralement procès am ñu dagg ko moog bugaan non lii duñ ko génn ñu xëccoo ñoom ñaar bugaan na a non ko dem ñii mën nañ ci am xaalis ñu xool xam ne mooy complot bi dëgg capitaine ko ndax moo yor enquête bi ñu ne ko teppet dagg ko ci interview bi dem jox ko Macky Sall ak Marème mu jox leen ko fii mu génn na ma wala amul akeetoon kenn xamu ko sagaru nit boobu ànd ak ay chroniqueur dem ñu xëy nag seen TV naan may tës nag ratatatatat xam nga man damaa wowle man damaa dëgër man pour nga ba ma ay tësi ki ay tasa ci yam man yooyu yëngalu ma parce que man je suis je damay téye sama dëgg ba noppi ngooy du ma bougé yàlla bu doon wàccee ouragan tsunami amay taxaw fi ma taxaw ak sama dëgg man kot dama ñeme wéet <laughs> xamuñu ma sax xamuñu sax ñu ko seqal <laughs> mu génn tës ma ñaari fan woo naa Sonko Sonko nee na xamul ko Akhenaton kooku du tus Sonko ne ko porté ko plainte ma woo capitaine Touré capitaine Touré ne ma maa ngi fak mais su ma génnee kër <laughs> waxoon naa leen ko Ahmed Aidara ci boobu jamono waxoon naa leen ko ne leen jubul xaalis lay wër tur yàlla Macky ndax lu tax muy liggéey Macky Sall mooy moom foo waxee mu ne mali Gakou te Malick Gakou Macky Sall lay liggéeyal xam nga Malick Gakou day liggéey ak ay polonais Malick Gakou c'est un c'est une mafia Malick Gakou bi nga gis mafia la xam nga am na ay jamono fu Ousmane Sonko dugg Malick Gakou moo fay dugg Malick Gakou da doon topp Ousmane Sonko à fu Ousmane Sonko dugg ci Sénégal Malick Gakou ànd ak moom comme am na ñoo xam ne tey fu Ousmane Sonko dugg bi dugg fu fu Ousmane Sonko dem ñu taxaw di ko marqué à la comme garde di ko ñoo ñi Macky Sall la ji liggéeyal Malick Gakou am na ay jamono fu Ousmane Sonko teg tànk moom teg fa tànk ba rendre compte ba ko Sonko xamee loolu ay pexe am na ñeneen nag ñu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko moo xam góor moo xam jigéen fu Sonko teg tànk bi teg fa tànk rendre compte Macky Sall ak mooy Ngoone Saliou moom naan journaliste la Ousmane Sonko dem mu teg fa tànkam rendre compte li may wax jalu muus la Malick Gakou da doon liggéey ak ay polonais ci ay mafia dil yu garaaw dil yu salte yu garaaw ñooñu dem Macky Sall mi def ay enquête pour bëgg képp Malick Gakou am fu ko téye pour mu di ko liggéeyal mu def ay enquête jaarale ko ci ambassade du Sénégal ba Pologne ñu jël enquête ki le ministre conseiller chargé donc de de de de comment encore ministre conseiller chargé de qu'est-ce qui ma j'ai un trou là chargé de la promotion économique et touristique day am ci ambassade benn benn benn service chargé de la promotion économique et touristique ñoom ñooy jaay Sénégal en général ñi ñi dirige service boobu dañ leen di tuddee ministre dañuy am rang de ministre ay avantage ay oto ay kër ñu am ñu yéegi leen rang de ministre am na ku ñuy wax Jombos Jaw Jombos Jaw ay tour laay joxe de moom moo yore poste boobu au niveau de l'ambassade du Sénégal en Pologne enquête bi ñëw dugg ci loxoom ñu enquête ba xam ne Malick Gakou dafa nekk def trafic ci ay produits yu dangereux yoo xam ne dañu ko interdit moom ak polonais yooyu di ko dugal Sénégal di ko dugal Afrique mag sal dem ba téye deal boobu mafia boobu réseau mafia boobu gis na mali Gakou mi ngi ci biir booba Aly Ngouille Ndiaye moo nekk ministre de l'intérieur mooy renseignement yi Maki sa le dadi menanse polonayi, nen yon ife kon yon baye ligye pou yon mwenye defak mali gaku, pou te jirou binen mali gaku yon bodo amate khalis. Mwen kwa diyekou, mwen fèkhe mwen maki sa le devye polonayi, nen yon boulen ligye yote ak mali gaku, kalen gen ligye yon akman. Mwen defalen ay fasilite ou bilen ay posibilite tout sa. Jom bas jow, mangan chep polon. Kou mwen dach mangan vobol degi ou pa, men yon jaman wap mwen vone kon. polonais yi tamit dañuy business dóor daan na ko ok ñu def benn opération am ay commission yu waroon wàcc ñëw ci Macky Sall Macky yónni Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye dox ko Aly Ngouille Ndiaye bi muy dox commission yi mat na cinq xuma dix milliards suma jumul ci montant yi xamatuma ñaata la mais en tout cas c' était une forte somme yu polonais yi waroon jox Macky Sall ci ay commission ay deal yu garaaw yu ñu doon def transaction Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur moo ko dox ñu war ko jox commission bi war ko indil Macky Sall à l'époque Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye amoon na benn booyam boo xam ne moo ko dugal ci système bi mu ñi ñu koy tuddee Doro Gueye doole gi bi ngeen di dégg ni Aly Ngouille Ndiaye ko la nekkoon doon fa def tuuru duna daw ñëw Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moo ko dugal ci mafia bi Doro Gueye Amadou Doro Gueye comme dafa jege Aly Ngouille Ndiaye bi Aly Ngouille Ndiaye di négocier commission Macky Sall yooyu ak polonais yi nga xam ne moom la ñu fëkk ci mali Gakou Doro Gueye dafa nekkoon ci kër système bi Aly Ngouille def ko confiance am xam lépp di déglu lépp conversation yeeg deal beeg procédure beeg yëpp Doro xam lépp ndekete Doro mi ngi enregistré Aly Ngouille Ndiaye te ko. mu ngoog doora Cheikh Clara borom Cheikh Clara moom moo enregistré Aly Ngouille Ndiaye dem jaay ko Macky Sall jël enregistrement yi ndekete polonais yi fay nañu xaalis bi Aly Ngouille Ndiaye Macky su ne Ali Ali na ko ba léegi maa ngi négocié gars yi fayaguñu ñu ngi may dawloo yooyu Macky mer ndeke fay nañu Ali xaalis ba ba Ali tëdd ci Aly Ngouille Ndiaye tëdd ci xaay fi doora na loolu ne Aly Ngouille dem jël preuve yi enregistrement yi polonais jox nañu xaalis Macky Sall di Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille tëdd na ci Macky mom jigen ak xaalis sex drogue la république de rock and roll Macky Sall sex drogue alcool ak trafic cocaïne Macky Sall mom du chef d'état itteelu ko faalewu leen Doro Gaye daal enregistré Aly Ngouille ak polonais yi xamna na xaalis bi duguna na Aly Ngouille Ndiaye téye na ko ba noppi di dawloo Macky Sall naan ko tey suba joxuñu ma kër kër do Gaye daal di enregistré Aly Ngouille Ndiaye dem jox ko Macky Sall Macky soga xamne kon Aly Ngouille Ndiaye da ko doon dóor moo tax élection yi passé ba Macky faluwaat Macky yëkkati Aly Ngouille Ndiaye sànni ko fale génn ko ci gouvernement bi Aly Ngouille Ndiaye dem bay ñambi li tax Macky dàq ko Dora Gueye moo jaay Aly Ngouille ci Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye dem euh, Jolof euh, dem bay ñambi pulux pole na yooyu nag bi ñu demee ba Macky seppi Aly Ngouille Ndiaye nag dafa indiwaat nag mali Gakou ñu def marché deal léegi dama lay delloo ak sa gars yi ngeen liggéey mais sama kët nay ñëw sama kët ci américain kët mooy sama sama sama wàll nay ñëw sama kët ñu ñu ali Malick Gakou bi ñu rocc woon ñu dugal ko ci biir dilu mafia bi léegi Malick nag mi ngi ci mafia boobu moom léegi nag day jox Macky Sall wàllam Sénégal Morocco doom bi foofu nga toll yéen xamu leen li xew dee leen def su may wax ngeen di saaga rek naan naan Sénégal réew Colombie dee leen saaga Akhenaton rek léegi Malick Gakou ak Macky Sall dañuy liggéey Malick Gakou mi ngi ci biir mafia bi bokk na ci six sept personnes yi ga xam ne moom la Macky Sall choisir pour ñu nekk candidat en deux mille vingt quatre Malick Gakou ci la bokk c'est déjà validé Macky Sall validé na ko loolu mais xam nga loolu la Macky dafa sànn dafa tànn six candidats six candidats yi am na ñu war a jóge ci opposition bi quota bi jóge ci opposition bi Malick Gakou ci la bokk Macky wax na ko ne ko yow ci ngay bokk mais bokk gi muy bokk ci élection bi du pour gagner élection yi parce que Malick Gakou xam na mënut a gagner Macky xam na mënut a gagner mais d'accord nañu ci ñu boole ko ci. génne ko ci opposition bi ne opposition bi am nañu ay candidat Malick Gakou nangu na moom ci opposition bi la nekk te xam ngeen nekkul ci opposition bi mi ngi ci pouvoir bi mais day taxaw taxawaayu opposition pour que Macky Sall buy tànn ne opposition bi tànn naa ci Malick Gakou fekk Malick Gakou du opposant ci pouvoir bi la ànd mais dafa taxaw sol mbubbu opposant Macky Sall lay liggéeyal pour que candidat Macky Sall mën a sàcc élection yi taxaw ne maa ko gañe su boobaa ñoom Mali Gakou ñi ngeen gis ñu génn gañewul dañuy contesté une semaine comme na Idrissa Seck defoon 2019 exactement moom lay def te bi yoon ci ñoom Gakou lay jaar Mali Gakou d'accord na loolu dañ ko jox milliards mun na ay cagaam xëcc ay coca yi neem dox doxam xam nga et puis ci loolu lay ay ay nit lañ yoo xam ne bëgguñu Sénégal moo tax su ma gisee Ousmane Sonko di jaxasoo ak añuy je me pose la ñi ils sont extrêmement dangereux amuñu xam-xam bëgguñu Sénégal ils sont dans des deals dans des ils collaborent avec des mafieux yoo xam ne su ma gisee Ousmane Sonko di laabi soog ñoom di leen kaasal di leen samp di leen may doole dama naan Ousmane Sonko yëgul lu donc damay dem ba yàgg ma ne Ousmane moom dafa xamul xew wala xam na li xew wala il fait exprès tout ça parce que je ne comprends pas des fois j'ai du mal léegi nag dafa taxaw liñ ko laaj tontu wu ñu de aalika laaj te mooy yow li la Moustapha Dramé waxal loo ci xalaat mu bàyyi fa waxi Moustapha Dramé indi ay waxu Siré Sy loo xam ne weesu na lañ cay wax wax nañ ko ci lii ma leen expliquer ci Malick Gakou ak Macky Sall loolu fi la ak yéen a ay soirée yu ñuy organiser yoo xam ne Malick Gakou nga ci biir soirée cocaïne ak i caga ñu am lépp ña nga ci biir léeg-léeg ñu dem dégg nga maam Pointe Sarène kër Omar saw bu Yérim saw bu CSE fa la ñuy defee seen soirée cocaïne léeg-léeg def ko aux Almadies ci seen kër yi foofu ñoom Yérim Sow ñoom Malick Gakou ñëpp nga ci biir ñoom ñëpp a xamante magistrat yeeg juge yeeg band yeeg colonel yeeg. tuxkatu cocaïne yeeg ñoom ñëpp nappañekatu jéggi sàngara yi ñoom ñëpp Malick Gakou ngi ci biir tàtt la ñuy def ñoom ñëpp loolu yéen a ko xamul man xam naa parce que caga ji ñi nappaaje samay xarit lañ caga ji ñoom ñëpp Ousmane Sonko la ñuy àndal ñoom ñëpp caga ji lépp la ñuy wax xam nañu lépp vidéo yeeg photo yeeg lépp la ñu am kon dañoo bëgg caga te caga ji ñoom Ousmane la Ousmane la leen surumle Ousmane ñoom Ousmane la ñu ànd parce que lu ñuy caga caga caga caga xam nañ ne Ousmane nii moo nekk ci dëgg parce que xam nañ ne ñii ñu ko seqal ñoom duñu dara ñoo ñuy woo tegal ñu lépp jox ñu ay vidéo jox ñu preuve yëpp ñu téye nee na même Pape Alé Niang moo waroon leeral loolu non Pape Alé du ko leeral moom xam nga ñoom Sénégal mooy li wax rek du baax tax du baax mooy ki ne journaliste la si wax ak moroomu journaliste am duñu waxante dëgg dañuy raayante ki ne sëriñ la day raay moroomu sëriñ bi ki ne doomu daara la day raay du doomu daara bi jaaykatu mango bi day raay jaaykatu mango bi réew mi ki naa feq lay dox kenn dëggu ci gis nga ñoom média bi suñuy waxante seen biir dañuy défendre ante kenn du maanaam noppi sax lépp kenn mënu ko wax boo ko waxee ñu ne yow ñëpp ngay dal ci seen kaw naafeq gi nekk ci réew mi mais Ahmed Aïdara bu tase woon ak un vrai journaliste dutul waxati daa iman mais Pape Alé da koy ménager parce que Pape day bañ Ahmed Aïdara gis nga Ahmed teel na koo dàmp ne ko yow kenn du yow yow fi nga taxaw rek yaa fa taxaw yow yaay yaay kàngam bi yow yaay lii yow yaay laa man damaa am lu ba téye waaye yooyu da nga gis nga réew non <laughs> mais réew mi réewum cogg la réewum géwul la ñu taggante ba kenn lay ab daan wax naan doomi raam daaju deeju ñëpp taxaw ci kanam yàlla torox raggante mbagg dong lañ fi nekk te wallahi wax na dëgg bàjjo ba baax malik nee na ñun dañu dee taxaw ëllëg yowmal qiyaam taxaw ci yàlla ñun ñëpp tàbbi safara ñu ne ko lu tax mu ne mbag mbagg dong lañ fi nekk journaliste bi day rag morom journalisme bi eh, jaaykatu yàpp di ragg morom jaay sëriñ bi ragg kenn ku nekk yaa ngi ragg sa morom na rafet rek waaye lépp ci naafeq waaye na rafet rek na ku nekk daal fexe ba bu la sa morom mere waaye dëgg yàlla gi moom na torox suñu yónni wu ci yàlla fu mu xam na jëm toppatoo wuñ ko ñun daañu fexe ba raggante mbagg ba mu rafet donte ci naafeq la moo ñu gënal ñu ñu qaala Allahu qaala dëgg yàlla gi moom duñu ko fi wax ku ko fi wax dee naafeq moo tax du leer moo tax may mii du ngeen ma mën a bëgg man xam naa ne bëggu leen ma bëggu leen may déglu bëggu leen ma man xam naa lool man maa gën a xam waaye ndokk nag ndok ba nga xamee ne xaaruma ci yéen ngeen bëgg ma. <laughs> xanaa <laughs> ko <laughs> man donc ba nga xamee ne man man xaaruma ci yéen tus moo tax li ma xalaat te jàpp ne moo dëgg moom lay wax jàpp ci yàlla bu ngeen ma bàyyi yéen ñëpp ma ngoy ci yàlla toppatoo ma seen ngeen ànd ak man ak ngeen ñàkk ànd man ci dëgg rek lay jaar loolu moo tax question boobu dafa war a leer waaye comme réew mi ku jóg journaliste la tout le monde est journaliste il y a pas de journaliste dans ce pays ça le problème le journalisme c'est une vocation le journalisme c'est une technique Ouais, dégg nga maam toog télé média man du sax en entier ay ma ko mais j'ai du mal à les écouter entièrement parce que du xam-xam daal du xam-xam du xam-xam waa ñu ah, tontu mu dama lay relancer man du journaliste mais technique je te relance à la Jaja Bourdin écoute maa ngi lay laaj sama question te pare ko li ma la laaj tontu woo de dama la laaj lii ak lii dama baamtuwaat ko fekkee leeral nga xam ma leeral la ko li ma la laaj lii la loo ci xalaat du ma la ko laaj ñaari yoon nga di jéggi de mais ma laaj la ko nga bàyyi ma fa bàyyi la c'est de la complaisance c'est pas du journalisme ça. voilà te kooki ne nag doo lii wala mënoo lee mu futtu commencé mer saaga la ndey daal di lay xas daal di lay yéene musiba nag yéene la safara moom kenn du moom Sénégal moom doo tudd kenn. ku ci def li mu war a def te defu ko tegu ko ci yoon boo ko nee ni nga def du yoon tey nga dee moom bu mom moom bu ko wax la illa boo ko waxee tey nga dee c'est un péché moom kenn du critiquer kenn kenn bëggul ku la critiquer ñum <laughs> réew billahi réew mi journaliste bu indépendant amul Sénégal amul kay du du journaliste rek de Sénégal kenn indépendant wu fa yéen ñi di kenn indépendant wu ci a sénégalais bu indépendant moo amul sénégalais bu libre moo amul yéen ñëpp dañu leen tënk kuñ ci tënkul ci sa liggéeyukaay tënk nañ ci parti politique ba ci biir Pastef kuñ ci tënkul ci parti politique tënk nañ la ci métier bi nga nekk moo xam journaliste la moo xam mo moo xam loo mën doon buñ la tënku ci loolu tënk nañ ci ak sëriñ yéen ñëpp kenn li wax ni du ñoom rek de yéen ñëpp kenn libre ci amu ci kenn du ko am fitu taxaw wax li nga ci ko bi ñëpp dégg ki yeen kenn ñemewu wuko kenn ci yeen ñemewu wuko yeen ñëpp ngeen tënk Sénégal gëpp lañ tënk ci ak cëriñ ci corporation ci métier ci politique ci parti ba ci biir passif dañ lay tënk kenn du yëngu loolu la nekk ci yeen nak motax tax Sénégal amul indépendance ndax yeen ci seen bop indépendant wu leen yéen Sénégalais amul yeen liberté kon Sénégal mën tam liberté dañ leen teunk tout est à refaire comme disait le jeune Gabonais Sénégal tout est à refaire tout loo wax ñu naan day saa gis naa benn waaye bu génn temps yi de euh, infiltré Pastef boobu nga xam ne juridisme yu kenn xamul moom moo ko yónni booyam yooyu ñu yónni ñu attaqué Akhenaton day saaga suñu sëriñ ci Akhenaton ku ko topp il est dangereux da nga ba yàgg dootoo am pas-pas ñun de ñun Alaaji Maalik lañ gëm Sëriñ Tuubaa lañ gëm ñoom lañ yaakaar Akhenaton ku koy kii rek nag moo xam nag moom waa jooju xaw ma xaw ma naka xaw ma tudd ma ne kii kii daal moo ma xam ne kii nag moo xam Akhenaton dëgg dëgg il m'a bien décrit nag nee na a ku dangereux la Akhenaton da ngeen koy sous-estimer bu ñuy wax ñaan bu ko kenn tontu bu kenn wax ay waxam mais man dama am niveau niveau dama am niveau bu kawe yéen na xëy na ay làppate ngeen moo tax mun leen a xam fii fi muy waxee kii ku ko topp bu yàggee suñu pas-pas yëpp lay yàq kii il est dangereux ma ne ko wallaahi wax nga dëgg. ah yaakaar nga wax dëgg ma ne ko wax nga ma lu ma neex te yow rek yaa ma xam nag bu yaakaar na ma laa mere de mere wu ma la de parce que man du ma naa fekk ma waxee ni mel dama ciy d'accord soo ma tiñaale wala nga wax ma lu nag damay xuloo yow waaw li may bañaan mooy nga sanal ma wax ma loo xam ne ne ko waaye boo ma man ku dangereux la loolu xam naa ko ku dangereux la man loolu moom loolu nga di wax moo tax bi ko waxee daf maa neex parce que dag décrire nag waaw yow yow ku xam nga xaw ma ku ma xamul moo tax ba nga man damaa damaa am niveau bu kawe man dëgg la am nga niveau bu de boo ma boo demee ba a peeg Akhenaton ba xam dangerosité Akhenaton ba di ko wax jàmbaar ga yow xam nga ko au moins yaa gën a muus ki la yónni ci man infiltré bi nekk bi Pastef nga nekk booyam moom amul fitu tudduma yónni la ngay nga dima décrire naan ko dangereux la pas-pas yeeg Sëriñ Tuubaa lañ gëm ak Alaaji Maalik lañ gëm nga ne man loolu laay daj billahi wax nga dëgg li may dajji mooy gëm alaaji Malik gëm Sëriñ Tuuba gëm diwa gëm seen pas-pas yooyu laay dajj wallahi lazim wax nga dëgg <laughs> la ko yor yaa ma xam li tax ma di ko dajji mooy gëm yàlla doog lañu koy def kenn du alaaji Malik kenn du ko gëma Sëriñ Tuuba seen pas bon yooyu lay dajji <laughs> li ngeen fas moo moo bon moo tax ma di ko dajj ndax gëm yàlla rek yàlla rek moo ñel gëm yàlla rek la ñuy gëm nit kenn du ko gëm man nga bëgg alaaji malik man nga bëgg sëriñ tuuba rek waaye gëm sëriñ tuuba gëm alaaji malik subhanallah yàlla na ma yàlla musal ci loolu kooku dajji rek waaw suñu pas-pas yi lañu bëgg ba xool ko ba ree ba daal xool ko billahi yaa ma xam loolu tamit ci mission bi la bokk fexe ba seen gëm-gëm yi ngeen gëm ñu dajji ko saara ci yàlla ba ngeen jël seen gëm yi wéeru ci yàlla jox ko yàlla ñàkk gëm yàlla gi ngeen ñàkk gëm yàlla gëm alaaji malik sëriñ tuuba moo tax nangu leen a xeex nit ñi ngeen gëm tañu dee bu yàgg nekkatuñ fi moo tax kenn du xeex sonko dina dee ci kaso bi kenn du jóg parce que gëmu yàlla bu ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg yàlla moom du dee bu ngeen ko gëmoon Ousmane Sonko génn suba ci kaso bi mais comme ko ñi ngeen gëm ña nga ca bar sàq tëdd moo tax Ousmane du gaaw a génn kaso wallahi mënu leen a am ku ma gën a bëgg réew mi mënu leen a am ku ma gën a xam li xew ci réew mi mënu leen a am ku ma ëpp fit ci wax ci kaw léegi mënu leen am ku ma gën a libre man senegal gi yëpp jàpp naa maa ci gën a libre kenn tënku ma te lepp lu may wax njëriñu senegal la ci xool ak sama aqulaay taala toog ci pale beeg te toog ci sama kaw bek beeg tëdd ci bammel bi la yemale man fanan ci bammel ak fanaan sama la laa yemale xam nga da ngeen am lu ngeen regal rek di ngeen am xam nga gëmu yalla serigne ci ngeen gëm alaaji Mbaag serigne touba mi ngeen gëm ta ñom ñanga ci armée la ngeen nan alaaji Mbaag lañ gëm serigne touba alaaji Mbaag Sëriñ Tuubaa ñanga ci armée la ana yalla mom man ki ma gëm teudul ci armée ndax du dee du nit man ma gëm wiru ci koku di wax deug ngir mom yéen ngeen ne man damay ñëw di yàq seeni pas-pas dama koy dajji sànni ci yàlla ba parce que ay pas-pas yu bon ngeen am te mooy gëm nit yàlla dañuy gëm kenn du gëm nit doomi xaraam yi ngeen doon yéen a bon wala li nga wax neex ma dama kii da yàq suñu pas-pas kii moo ñu gën a xam kii ku dangereux la ma ne ko wallahi xam ga ma yaa wax dëgg laal nga ko fi nga laal metti de fii nga laal fi la gëm ñoo xam ne ña nga ca bàmmeel tëdd bu yàgg bañ léegi léegi mat na mat na junni at wala boog mat na ab xarnu mat na mat at nekk ci suuf xamatu leen ci lu ñu nekk ngeen na ñooñu ngeen moo tax ngeen taskare bu ngeen mën nekk téeméeri at ci suuf xamu leen ci lu ñu nekk ñoom xamuñu lu ñu ngeen nekk ngeen gëm leen toog fii di bàkku naan ku ki dee tàbbi safara ci loolu <laughs> man ki ma gëm dee <laughs> man ki ma gëm du dee kon seen nafiq gi ngeen nekk man bokkuma ci xalaatuma ko man pas-pas lu ngeen di fas lan ngeen di fas lu weesu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah loolee bu ngeen ko fase mu nekk lan ngeen di fasat lan ngeen di fas dama leen laaj lan la leen yàlla sant ngeen fas ko kan ak kan pas-pas benn pas-pas la yàlla ngay fas na moom yàlla jooju mooy sa yàlla moom dong nga gëm boo ko gëmee ba noppi nga gëm na moom rasulullahi mi moom na yàlla yónni ci yow pour wax la yow gëm gi dafa ay jëf jëf yooyu noo koy jëfee nga gëm na yàlla moo yónni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yónni gi mooy ni la ak duni nii la ak duni yàlla néewul Serigne Touba ak Alaaji Ba yàlla xamul kuy Alaaji Malick xamul kuy Serigne Touba yàlla xamul xamul Baay Ñas moo tax ñoom ñëpp la rey def ci suuf comme ni mu defee ñëpp ku yàlla bind def na la ci suuf noonu la fa alaaji Maalik ga Sëriñ Tuubaa ñëpp a ngi ci suuf xamu leen ci lu ñu nekk ñoom it xamuñu ci lu ngeen nekk yàlla moom déewul mu ne man mi dul dee man qul huwa allahu ahad allahu samad man mi nga xam ne man maay kott man duma kenn kenn du man juruma kenn kenn juruma man tu duma dee man yàlla man ngeen di gëm man dong maa ñeel gëm pas-pas bi ngeen am li ngeen di fas ak man ngeen koy fasanteel képp ku ko wul ak man way ñak nga ëlëk da nga bi safara lu ngeen fas fasante leen ko ak man ngeen nako fu ñuk yeen dem di fasante ak ay nit yu dé ñuy sul ci bambel ma diko dajji ngeen nako ku dangereux la ku dangereux la wallahi ku dangereux la <laughs> loolu mom dama ko d'accord ak yow waye ki la yoni mo amul fit ko dangereux ki la yoni amul fitu jokk amul fitu songu ma légui da lay yoni yow te yow li ngay wax daf ma neex mais comme da nga ni politique ta mom ab ki la yoni filin infiltré de Pastef day nappaaje ci jéeg di turiyande lekk xaalis jàmbur yi ak nappaaje ko fenn moom àdduna lay wër ñu mel na yow yéen a koy arrangé pour mu wax ne woy damay yàq sëriñ si may laal yooyu seen yàlla yi laay laal seen statut yi seen dénk yi seen yi moom lay dajji effectivement dama koy dajji pour jaxase ma ak askan yi kon yéen dajji yàlla yi may dajji mooy seen sëriñ si tax du ngeen fallu ma leen ndokk ngeen ñàkk falu moo ma gënal fukk junni yoon ngeen dee tàbbi safara moo ma gënal fukki junni yoon ngeen wedd yàlla tax lii jël ay nit teg leen place yàlla yaakaar na nit ñi ñoo leen jox nguur gi googu nguur man so nguur googu dama koy xeex nguur gu yàlla joxe dama koy xeex man nguur gu ay sëriñ joxe damay ut damay xeex ak yéen man nguur gu yàlla joxe lay wër waaye nguur gu ay sëriñ di joxe képp ku koy sàkk sama noon nga damay xeex ak yow sama wax day leer man nëbbatuwuma képp ku yaakaar ne sëriñ si nekk ci réew mi ak seen maam nekk suuf ñooy joxe senegal képp ku ko yaakaar sama noon damay xeex yow nguur yalla moko ko joxe ab serigne mënu ko joxe kuy dé mënu do joxe dara te ñi ngeen yaakaar ñëpp dé nañ ñi nga ci suuf ngeen kenn du wax waaw bu leen koy déglu kërika ndok bu leen may déglu wallahi alazim bu ma demoon ba ci ab désert bu kenn nekul désert man kott ma tok fa di wax wax ji wallahi yalla dana yoni ay pitch ak rabu àll ñu yow tok di ma déglu <laughs> xanaa wax day fin li may wax ni su ma demoon ba désert bi gën a rëy ci àdduna bi man na fa copp man kott toog fa di wax lii wallahi yàlla dana yónni ay rabu àll yónni ay garab yónni ay picc ñu ñëw na kuj gi toog di ma déglu yéen xamu leen li may wax li may wax dafa foor li may wax yéen xamu leen lan la doomi xaraaba ku gi dee tàbbi safar ndax gëmu leen C'est quoi la question Dakar TV? léegi nag Ahmed Aidara li ci gën a garaaw mooy waaw Pastef kon ñoom Ousmane lu mu bëgg ma jox ko ko parce que li ma defal dañoo bëgg ñaari candidat moo tax ñu soxla vingt six députés waaw laaj boobu kan moo ko laaj Ahmed Aidara kenn laaj ko ko fa ñu ko laaj tontu ci mu ñëw di vilipande waa Pastef di leen weer parce que wax jooju yéen xamu leen lu tax mu wax ko ki Sall lay waxal ñi muy liggéeyal lay jox secret waa Pastef set si nañ ma di ak diw diw ak diw seet si nañ ma ki Sall lay waxal publiquement day wax ak waa état attention de ñi ngi préparé ñoom lii mooy seen stratégie seen plan yi lii la sama benn poste bi lañ soxla pour lan pour que ñëpp jàpp ne Ahmed Aïdara benn personne bi mooy tax Ousmane Sonko mën a am ñaari candidat yu treize députés yu ñu war a parrainer mu nekk ci digg mel ne moom kese moo fa nekk député benn ñaareel bi mooy Macky Sall lay waxal di ko jox information yi nekk ci suuf di ko joxe publiquement di wax ak ñoom te patriotes yi xamuñu ñetteel bi tax muy xeex te xamu leen ko mooy bi ñu defee bërki démb bureau assemblée nationale bi dañ ko renouveler waaye yeewi waa waa wallu soit taxawu taxawu taxawaalu Sénégal génn Ahmed adir dafa dem ci waa yewi askane ba léegi mi ngi ci bir yewi askane parce que mën ta dem parce que Macky Sall lay liguel du dem waye day xëccu ak ñom neena na dañu nee dañ ko jox ci poste vice président yi wala poste secrétaire élu yi comme yewi askane ñafa dess fa des am nañu ay poste poste yoy da ca bëggoon mom neena dafa bëggoon nek président ba ñuy fal président assemblée bi mu loupé léegi neena na nañ ko jox ci poste bureau assemblée bi nga xam yewi askane seen quota am nañ ko ci nañ ko ci fal da leen doon chantage comme joxuñu ko ci motax mu wër leen tay ci pap Alé Niang barki démb weer leen parce que dafa bëggoon poste secrétaire élu le président de commission le vice président wala wala wala wala vice questeur wala amu ci may Ousmane Sonko Ahmed man du ko def gardien kër ba di def député def maire il est député maire muy nañ ko def bureau assemblée bi encore muy troisième position bu ko ci ñu ñoo ko dàq jàng nekk ay maîtrisards ñii am ay seen master plus am ñii nekk ay docteur ñii nekk am ay qualification dàq ko jàng gën koo xam réew mi ñëpp ay député simple lañ kenn déggu leen na nga ci biir di xeexal Sénégal biir yeewu askan Ahmed Aïdara nga xam ne xamul fu jant bi di fenkee làmmiñ mu réew bu tooy wow fen képpay métier Ousmane Sonko def ko député def ko maire ba tax tey Ahmed Aidara yëpp waa yeewi askan wi di xëccoo ay poste bi ci biir bureau assemblée nationale bi kooku yëpp gi ñu yëpp moo tax tey mu génn di tiñal waa Pastef mais nag da koy def de façon subtile da leen di fësal sànni siiwal leen ba noppi tagg leen junni yoon Pastef yéen ku leen tagg rek ku leen ne Ousmane mooy yàlla ji wala mu cuuraayu dëmm li moo tax ma nekk lii tax ma nekk laa yéen ñëpp ngeen xam nag daal di suuf jëloon ñu ne oh waaye suñu waa ji lay ku sell gi yëgu leen lu xew jamono bi ngeen di suppa yalla ñoko ko ko contane Ahmed Aidara duule leen qualité Mali bi sànni na ben push ben ngelawal bu bon ne mak Sall ñi ñaari candidat la ñuy waajal ci ci député lañ ko jaral ñu ngi may côtoyé de ñu ngi may dawlo ñu ngi may daw pour ma jox leen sama voix ma di leen xamal ne Ahmed Aidara gis nga poste député boobu mu bëgg a jël def ko mu nekk poste boo xam ne dañuy daw ci ginnaaw moom di ko soxla soxlawuñu ko Ahmed Aidara sa poste boobu ngay wax soxlawuñu ko waa Pastef soxlawuñu ko jël ko nga jox ko Macky Sall wala nga jox ko ku la neex on s'en fout de ton poste de député ndax poste député boobu Ousmane Sonko moo la ko def boo ko mënee xañ xañ ko ko suñu yoon nekku ci jëlul nga di ko siiwal naan dañ koo soxla doomu raam ji boo baaxoon ak fi Ousmane Sonko daj ci yow fi mu jaar yow boo as góor di ko baax wallahi la ngay wax ak ñoom ci suuf doo ko yëkkati ci kaw yaay doy madame yaa bon Ahmed Aidara lu fàtte ba nga ma woowee nag maa ngi wax nañu de ba nga jàqee ba sa bët tooy quatre heures du matin nga ma woo ma wax ko tey dimbali ma bu fàtte Ahmed xam nga ma xam musuma laa dimbali ba nga ma ko waxee la ma la wax duma la dimbali ndax sa benn wax dong duma ci gëm duma ci sukkandiku di la dimbali bala mala dimbali damay am version xam li xew yépp musuma cey wax ndax yow dama la xam da nga ñak jom nak ñew di wut dimbal ci man dang ma yàkkee lu ne mais man dama ouvert loo ma mënti yak so ma woyé jaaxle dama lay déglu déglu na la nga wax ba sa xol sedd ma dox sama dox parce que xamna la alal jubu yomb nga bëgg chantage ci ngay dox sa lamine ci ngay dund fenn ak yak dara ki ay tëse ki tassa ki yu kenn xamul yo say kat kat ak say jég na pàjj te métier amet amu métier bëgg dund dund de luxe du sotti bu fàtte de maa ngi yow woo nga de bu ko fàtte voilà wax jaa ngi fi nag la ñu waxoon doon maa mi ngi fi xam nga ma xam waaw kon sa benn sagaru poste député boobu nga xam ne Ousmane Sonko moo la ko sarax daf la maire daf la député kenn du ci daw sa ginnaaw sa fen yoy ngay fen El mari sama xarit la diw ak diw ak fen yu fen yoy na nga fenal ne ne mo la ne El mari moko wax la da ngay fen Siré xamul El mari xamuko da ngay fen xamul El mari musuko wa da ngay fen wa ah, lol la japp bok lol la japp wóoru ma mel dama japp ne xamuko yewi askan wi cinquante députés la am bi élection yi passé Yewwi Askan Wi kese cinquante trois députés ci biir cinquante trois députés yi Pastef am ci vingt six députés au départ biñ ci amee vingt six député am benn député Japon bu gaañu ci wàllu Pastef bi mu gaañoo waa wàllu Sénégal jël député ba wàllu Sénégal comme da nga defar intercoalition gis nga de maanaam bi ñu demee assemblée nationale ànduñu wàllu dafa taxaw fële beddi ko waaye ni ñu nasee député yi am na ci ñoo xam ne bu ñu wàññi ko bu ñu gaañoo eh, beneen coalition bi moo jël député ba. waa PDS dañoo trahir waa Yewwi waaye bi amee kenn ku dee ku nekk ci Yewwi bokk Pastef kan Japon bi mu génnee àdduna ka ko remplacé ci list ba parce que def nañ ko ba noppi waa waa wàllu Sénégal la bokk ñoom ànduñoo ñoom mais ku dee <laughs> Sénégalais baaxuñu bildee réew mi baaxuñu léegi Pastef kon manqué na benn député ci nombre bi mu amoon. vingt six la amoon am kenn ku dee ka ko remplacé jóge wàllu Sénégal parti Ablaye Wade ñoom ñu jël ko yokk benn député Pastef wàññeeku benn député lii dafa lii da ngeen xam kon Pastef léegi ci biir yeewi askan wi vingt cinq député la am au lieu de vingt six ndax benn bi deele Pastef remplacé wu ko par Pastef suppléant ba ma nga bokk ca parti Ablaye Wade ndax ba ñuy defar ñaari coalition yi intercoalition bi dañuy dugalante su ma benn nga dugal benn ñu suppléant ba parti Ablaye Wade la bokk moo ko jël kon Ablaye Wade jël na ko wàllu dem Pastef manqué na benn député moo tax politique science la xam-xam la waaye kenn du fi cumuler kii day bàyyi kebal leen yéen ay lappate ngeen xamu leen bu leen Ousmane Sonko toppee ci kaso bi lay dee yéen xamu leen politique. léegi vingt quatre député la am astafurla vingt cinq député vingt cinq la vingt cinq député yooyu mën na na benn député bu ci treize su bëggee na benn mën na pare parrainer benn candidat ci treize député su bëggee parrainer ñaari candida il faut que mu am vingt six kon day manqué benn député léegi député boobu lu tax Ahmed Aïdara yaakaar na moom la war a nekk bu ñu fàtte ne ci biir Yewwi Askan Wi Aïda Mbodj am na benn député ci biir partem parti Habib Sy am na benn député parti parti Déthié Fall am na benn député donc am na trois députés yoo xam ne ñi ngi ci biir yeewi askan wi ànd ak waa PUR ak waa PASTEF ñu ànd di liggéey mooy benn député Déthié Fall bi benn député Habib Sy bi benn député Aïda Mbodj bi ñi ngi ci biir lu tax Ahmed Aïdara moom yaakaar na benn député bi manqué passé pour mu a pare na ñaari candidat su ko bëggee def ci moom la war a jógee forcément bu ko neexee moom Ahmed Aïdara député mu dem may ko Macky Sall wala mu jox ko koo neex on s'en fout Ousmane Sonko war naa mën a am député ci Déthié Fall benn di mu am wala ci Habib Sy wala ci ay dëmbooj war na ko mën a am foofu wala sax mu am ko ci pur parce que pur ñoom onze député lañu am pur onze député la am te pur ñoom ni ma leen gisee onze député donc manqué leen nañu ñaari député pour ñu mën a am treize député mën nañ ko am bu fekkee dañoo def choix pare na seen candidat bi par député yi mais ñoom mën nañoo am parrainage ndax daayira la ñoom seen parrainage day baax mën nañ koo liggéenti ba ñoom seen seeni daayira ñoom duñ jox seen parrainage kenn dañ koy takk bam na koo di indi ko sëñ bi kon puis ñoom normalement wuñu waruñoo am problème parrainage ñoom mën nañoo parrainer si de façon citoyenne parrainage mbedd yi kayit yi ñoom donc bu ñu pare bu ñu defee parrainage citoyen dañu am seen 11 député yoo xam ne mi ngi seen loxo benn député bu Ousmane Sonko soxla ci onze député pur yi pour mën a pare la ñaari candidat loolu yaakaaruma mu nekk problème entre Pastef ak pur kon gis ngeen ne Ousmane Sonko fi mu mën a amee ay député yu ko mottali mu mën a parrainer autant de candidats bi mu bëgg a parrainer du dara lu tax Ahmed Aïdara génn di yuuxu di leen gëmloo ne moom benn poste député bi su ko Ousmane bëggee mu jox ko ko patati patata loolu lépp pour bëgg a nekk ci digg coole ñu ne mënuñoo dem sans Ahmed Aïdara duñu dem duñu mën a am ñaari candidat Ahmed Aïdara moo ñu a xettali comme na Pape Diop taxawee woon ba ñuy taxawal assemblée bi nga am lii Macky moo leen doon xaajale muy Pape Diop ñëpp di ko xëccoo mu xëy tafu ci a Ahmed Aïdara position boobu la bëgg a taxawaat tey te loolu amul ndax moom bu ñu ko ñàkkee tamit benn député boobu bu ñu am ko ñu ñàkk ko ñu ñàkk ko sax moo parce que àndul la ñun Ahmed Aïdara mën a laa pare na ba yàgg pare naa bi du yàqu mën Ahmed Aïdara n'est pas sûr kooku kooku député am soxla wuñu ko na ko jox Macky Sall ndax moo ma koy ànd Ousmane Sonko kooku utal waaye moom liggéeyalul Ousmane Sonko ñoom ñëpp ay làppata lañ no cumul biram lii kërë kërë booba seen infiltré bi nekk biir Pastef mu leen yónni woon ñoom ñëpp pour que Birame bàyyi poste député bi infiltré bi nga xam ne fexe da ba nekk suppléant Birame ci tricherie ñu yóbbu liste yi ba Dakar mu ñu rocc kenn dugal ko ca Dakar te bañ koy def Thiès fekkiwul bokkul nekkul candidat ñu jox ko liste yi mu dem ba Dakar ñu génne kenn kuñ faloon à la base rocc ko dugal ko moom de façon antidémocratique moom moomee ba Birame su lay faloo mu ne léegi nañ def lobby jóg xeex ci réseau yi fexe ba biram bàyyi benn poste te poste bi ñu bëggoon biram bàyyi ko mooy député bi pour biram yore mairie Dakar euh, mairie Thiès Ouest ñu ne na biram téye mairie bi bàyyi poste député bi pour que infiltré boobu di liggéeyal Macky Sall mën a jël poste député bi may leen du ci ñoom ñëpp ñu taxaw man kottuma taxaw di xeex ak ñoom man képp Sénégal gépp ñoom ñëpp ñu ne kenn du fi cumul mën leen day cumuler par force te booba jamono def naa live wax leen lu tax mu war a cumuler joxe ay raisons politiques ay raisons stratégiques Ahmed Aïdara fu mën a nekkee député maire bay xëccoo tey bureau assemblée am poste xam ngeen ne kooku day politique te xamul dara da Ahmed Aïdara moo xam enjeu yi ci cuune bu mel ne moom waxoon na la waa Pastef ñaan nañu cumulé du ngeen cumulé yéen da ngeen a cëkkale di booti gàmb di nga maam laxle euh, euh, te xamu leen politique am ngeen sens ba fi nekkee di bañ su ma fi nekku woon musiba am ne biram day biram su lay day cumuler par force Habib Cheikh Habib Beye da ngay cumuler par force parce que loolu mooy dooley Pastef loolu mooy dëgg loolu mooy politique pure mais comme ay lappata ngeen xamu leen lu xew dañ leen di manipuler waaw les entrepreneurs politiques de Pastef ñi nga xam ne Macky Sall la ñu liggéeyal nekk bi Pastef infiltré Pastef ñoom ñoo leen manipuler man bokkuma ci bu ma dégloo rek Ousmane Sonko am ndam bu ngeen xeexee man Ousmane Sonko que man science pure lay wax ak yéen doxuma ci ay boobu jamono nag làppta yeeg courtisan yi la la la billaay Sonko dafa am doole Pastef ñun rëy fraternité la la la la la ces griots là géwél yi nga xam ne dañu nekk Pastef mbele la la bëgg buzz ne ñoom Ousmane Sonko moo tax ñuy wax amuñu seen xam boo xam ne ñu mën a taxaw imposé wu ci seen xam-xam ak seen kàttan seen wax yëpp Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko guddeeg bëccëg saa yu ñuy laaj Sonko Sonko Sonko Sonko ñoo ñoom seen xam-xam foofu la yem amuñu xam-xam ñoo ñee nag léeg-léeg ñu gaaruwaale a Akhenaton duñ ma tudd nag mais dañuy gaaruwaale parce que Akhenaton <laughs> moom du ñeexum ñebe dañuy <laughs> gaaruwaale li ñuy yónni ma ne ma fa la diw mi ma ne kon ñu amu seen jot man damay wax seen maam yi ñoom ñoom ñoo ngi di ma gaaruwaale seen seen maam yi dañuy jéggi samay wax ñoom waxuñu ma ak ñoom Abdoulaye Wade noonu gone gu réew bu la toogee da nga koy jéggi duma bàyyi bi ñoom dama leen di jéggi duma seen i bàyyi ñoom gone yi ñooy lappi-lappi sama ginnaaw di wax seen bàyyi ñemewuñ ma li may samp seen bàyyi mënuñu ko sempi <laughs> wax day fin xanaa lu ma leen waxoon newoon naa leen mbiram day day cumuler ah, fu mujj question cumul ba fu mujj anamu fan la mujj la ma waxoon mooy am taxaw naa fi ne leen biram su bàyyee cumul ba mu bàyyi ma ma ma ma xeex leen du ko ba parce que njariñu Pastef la defuma ko pour biram du toppatoo ma biram xaw ma biram waxuma ko ngir lu neex biram man duma wax lu neex kenn défendre duma kenn Pastef laay défendre bu fa keneen taxawoon place biram nii laa koy défendre defuma ko pour biram de defuma ko ngir kenn dama ko def parce que mooy njëriñu Pastef te mooy doole Ousmane Sonko moo tax ma xeex ko ba tëdd ci naaj bi démontré naa ko wax naa leen lu tax ma def ko ci xam-xam laa ko teg ci ay argument nekkuma fi rek Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko man ci uruma bës su ma doon ut bës damay taal sama laay bi tàgg Sonko guddeeg bëccëg ngeen ne xalankoo ko supp jalañoo ko puudaru def seen par parfum naan ma Akhenaton ah, billahi suñu wajib suñu patriote bi kër kër toppatoo Sonko sax dama koy attaqué mu def lu lu deful Ousmane Sonko jox xam duma ko may dara bu jàddee yoon ma dóor ko yat man doxuma fi ànduma ak yéen ci ay ànd ak lapato je ne suis pas un courtisan ñuy xeex caaxaan da ngeen foog dañuy nekk fi di laay fekk di caaxaan ak di cëppi di golo golol ñu ci bari ay golo lañu vraiment dee ñu toog ci seen écran yi di jéngu jéngu lu jaay affaire guerre yi quoi oui ñun patriotes yi yéen ñun lii ñun dañoo xam lii ñun dañoo man li lu ngeen xam gertu bay ngeen yéen patriotes yi gertu bay da ngeen war di déglu ñu ci ëpp ci yéen ak gertu bay xamu leen dara mbalalala Ousmane Sonko leen yóbbaale yéen kott kott kott demu leen fenn togi leen fenn amu leen xam-xam bu ngeen mën a teg ci ko taabal ci leen fit bi amu leen xam-xam Sonko moo leen yóbbaale bëgg may fonto maanaam cumul ba fu mujj li may samp mënu leen koo sempi seen bàyyi mënuñu koo sempi ci Pastef te bokkuma fa de yoru ma kàtt de mais su ma leen seetaanee Macky Sall mu yóbbu leen àllaaxira yéen ñëpp gannaaw suba aller retour lay def ak yéen billahi su ngeen fi nekkee ba léegi di wax ma man di fi nekk di jàpp ma bu ba leen bàyyeeg Macky Sall da leen Macky moo leen gën a bandi gën leen wuyu xam na ne xamu leen dara amu leen fit ay tappet ngeen ay mboqat ngeen ñun ñi fi nekk di xeex ak ku moo tax Macky di. yeexal mbir mi mais yéen kot ak Macky Sall taxañ na leen bu yàgg kon ne kenn ku ci nekk xam ku ko man ak ku man na kenn ku nekk bañ di xaru fekk ku man ku la man man sa bàyyi nga di ko tëkku ak di ko fonto ak di ko gaaruwaale di kàll kàll ci kanam dalay lay romb fekk sa bàyyi fa mu nekk mu ñuus ko ñuus yi metti ci sa kanamu bàyyi te doo ci man dara xam leen seen bopp te ngeen bàyyi xaru gi ngeen di xaru voilà loolu laa amoon lu may wax naa dellu si waat ci Tanor Thiendella Fall ak biram seen ak ñeneen ñeneen yoo xam ne ak samay vidéo ko samay photo ki yépp yoo xam ne caga ji fi mu ni ñoom ñëpp ma jël fi mu toll ni li ma ci ay caga du jeex cagay Sénégal yi Ndakaar yi ñu ngi fépp nag càmbar càmbar ci waaye nag dañoo tuub léegi nee nañu ku sell ki ñoom ñëpp ku sell ki la ñuy wër Ousmane Sonko nga xam ne yàlla mooy xakim ku àndoon ak ñoom gaay yi di nappaaje ba ñoom ñu wëlbati ko xam ne ñii ñuy nappaajante ay dooberam lañu ku sell kii moo ko yore nga xam ne yàlla mooy ubbi xol ko neex tàbbal ci tàbbal ci tàbbal ci jëmm ju ko soob waaw xale jigéen fii laa taxaw ne leen réew mi mi ngi ci taatu jigéen ñi. réew mi ñu taatu jigéen ku bëgg a xam mi li ko téye li ko gàllankoor ba nit ñi dee ci géej gi ñu nangu suufu jàmbur ñii di jooy ñii cancer de sein ñii koy ko mi ngi ci kumba jigéen ñi seen sër yi boo ko wëlbatee rek seen toogukaay yi boo koy wëlbatee boo koy yëlëb réew mi yëpp wat mi ngi ci mi ngi ci kumba seen jigéen ñi ñëpp loolu xaram foofu laa yem ak yéen tey mi ngi guddi te ngeen teewlu taataan daañu indi lépp benn par benn incha allah rabbi di leen wax na ngeen jóg taxaw getaru am fulla am fayda jóg taxaw xeex benn candidat moo fi am muy Ousmane Sonko amul fukki candidat nan dañuy ut beneen candidat ki dañuy jaar fii ki bu bii jàllul bee jàll yéen usman Sonko bu jàll bu jàll Ousmane bu jàll kuy jàll. dama leen di laaj Ousmane Sonko jàll ku jàll wax sànq benn député waaw euh, léegi dañuy jéem a xool ñaari candidat bu bi jàll ba jàll ma ne ko yow dama lay laaj benn laaj te yéen ñëpp laa koy laaj député bi bu fekkante ne parewu leen pour xeex pour Ousmane Sonko nekk candidat gañe réew bi ba tax ngeen ne nañu ut beneen candidat boo xam ne bu Sonko jàll kooku jàll ngeen koy xalaat Macky imposé leen ngeen dem ba nangu loolu di ko xalaat di ko di ko di ko di ko waxtaan seen biir loolu xam ngeen lan lay tekki mu ne ma lan lay tekki ma ne ko yéen kon mënu leen a xeex ba Ousmane Sonko taxaw nekk candidat bi jël réew mi comme mënu leen loolu tax ngeen jàpp ne keneen ku Ousmane Sonko parce que daf na ma Ousmane ku mu tànn day gañe ma ne ko nu muy gañe ma dañ koy votel ma ne ko naka lay naka lañ koy votele mu ne ma en tout cas day gañe ma ne ko waaw même bu gañe du gañe Ousmane ku mu mënti tànn bu ngeen ko voté ba xob yëpp jeex sept millions quatre cent mille électeurs yëpp ngeen votel ko kooku kooku du gañe mu ne ma lu tax mu ne ko Macky Sall foog nga ne dana xeex ak Ousmane ba setti ko ci élection yi te xeexu leen yéen mu teg ko fee ngeen am beneen candidat ñëw teg ko mu bàyyi ko mu jàll élection yi ñëw Macky Sall ne Ousmane Sonko mi ma seppi te moo gënoon a jafe dëjj guy la ma seppi ko teg ko fay ba sama ndigal damm ci waaye xeexuma ci waaye ndigal damm nag seppi naa ko teg fee sama ndigalu damm lii ci seppi Ousmane Sonko ndax danaa ci jóge di nangu victoire ko Ousmane Sonko samp kii moo gañe ak li ma daj ci Ousmane Sonko ba sama ndigal damm ndax danaa bàyyi keneen ku fi Ousmane Sonko samp ma di ko jox réew mi may génn pale muy dugg ak sama ndigalu damm li kon damay perte sama ndigal damay dam ci dara. su ma séntee Ousmane Sonko ba sama ndigil dam kenn dootu fi toog maa fi toog wala ki ma bëgg moo fi toog ak lu ma mën a coûter même bu ñu ko votelee kookee Ousmane Sonko ba mu gagné damay taxaw ne maa gagné par force imposé élection yi mu jaar direction des élections commission nationale de recensement des votes cour d'appel Amadou Diouf a fa nekk nga dem après cour suprême nga dem conseil constitutionnel ay kii ma fa nekk génn armée gendarmerie teg parce que li ba ma génnee Ousmane Sonko ci yi ba sama ndigg damm teg ko fenn lu jaay doole booba nangu wuñu xeex ak man dañu maa ragal ay mboqat lañu xeexuñu ak man li ma def teguwul ci yoon foqati naa Ousmane sànni ci àll ba sama ndigli dama na ci waaye xeexuñu ak man ay mboqat lañu comme ay mboqat lañu nag ba ma sempi seen yàlla gi teg ko fële muy Ousmane Sonko léegi ku fi seen yàlla ji ku fi tegit dama koy sànni ci àll ba parce que ku mënta xeexal Ousmane Sonko doo xeexal am yembar bu Ousmane Sonko samp xam nga nit da ngay amum xel gis nga bu ngeen xeexul ak Macky Sall pour Ousmane Sonko bokk bu leen dem élection bu bokk élection parce que mënu leen a muusa ko macaat ba gañe Macky Sall même bu ngeen ko gañee danaan gañe wu leen day xeex ak yéen xeex bi ngeen di tànnal seen bopp naan gannaaw suba tey ngeen ko war a xeex pour Ousmane Sonko du après suba de naan candidat bee ki see ki dee ay kër kër Sonko mooy seen garab ci Macky Sall keneen ku ngeen fi teg naan Ousmane Sonko ko fi teg bu ko ku fi teg day gañe képp ku koy wax tappalekat nga képp ku koy wax Macky Sall ngay liggéey képp ku koy wax doo patriote patriote moom benn wax nga am mooy Ousmane Sonko mooy plan A mooy plan Z Ousmane Sonko day dem ci élection wala réew mi moom leneen la ñuy wax mu ne ma waaw léegi kon bu Ousmane Sonko nekkul candidat ñu xeex élection bañ a am man ne ko waa léegi bu élection bañ am mu ne ma su élection amul ki may wax ak député la mu ne ma su élection amul loolu Macky Sall lay arrangé ma ne ko naka la koy arrangé mu ne ma su boobaa day jël décret daal di prolongé mandat di toog député la de ma ne ko waa yow fan ci constitution bi. wala ci charte réew mi nga gis na Macky Sall bu situation bu mel nii amee mën naa jël décret prolongé mandam ban fan ci charte réew mi nga gis foo Macky Sall a sukkandiku pour yokk mandam fan foo ko gisee mën a tekk di ma déglu ab député ñoom ñooy voté loi de ma ne ko loolu ñu koy wax ñëpp bëgguñoo xeex mais Macky amul fu muy sukkandiku le 3 avril 2024 su élection amul Macky Sall nekkatul président mu a ma dañuy nekk ci benn situation inédite ma ne ko d'accord na dañuy nekk ci cas bu mësta am Sénégal te su boobaa Macky Sall moo ko créé mais su boobaa moom Macky Sall mënut jël benn décret nekkatul président bis naka boobu moom Macky Sall mënut a yokk mandat le mandat est populaire c' est un suffrage universel moom ci ay pexe nag njuut ñaajam fexe na ba élection amul ci trouble ak ñu bëgg a seppi ak ñu seppi situation boobu moom moo ko créé c' situation de chaos mais chaos boobu du profiter ak Macky Sall de Macky mënu cee sukkandiku yokk mandat am la ñuy fàq mënu ko amul fenn fu mu ko teg juridiquement armée bi dootu ko obéir. police du ko obéir justice du ko obéir kenn du ko obéir su boobaa conseil constitutionnel bi nga xam ne moom moo waroon a jouer son rôle d'arbitre jouer wu ko su boobaa moom mooy fautif wala moom mooy trouver beneen solution boo xam ne ñu trouver un gouvernement donc provisoire transitoire boo xam ne mooy organiser élection yi sans Macky Sall mais Macky Sall moomutu fait toog du décret du constitution du du lenn lu ko mën a may mu toogaat si parce que mandat bi jeex na un mandat égal un mandat Macky su ma nee prolonger mandaam kay Macky <laughs> Macky su ko wóor Macky su ma nee prolonger mandaam day créer guerre civile il a les ila il a des armes ma ne ko li ngay wax su ko Macky ma ne Macky bëggut a dem ku ko xool xam ne bëggut a dem su ko wóoroon ne bu réew mi tàkkee mu mën caa sukkandiku toogaat day taal réew mi mën na ko def me defu ko moom moo la gën a xam ne bu réew mi tàkkee du fi toog Macky réew mi tàkk ñàkk tàkk moom jeexal na fi bu réew mi tàkkee day dem bu réew mi tàkkul day dem xam na ko donc ñi jàppande xeex ak Macky day tax Macky toog fi ñooñu ñi leen koy wax duñ leen ko démontrer réew mi dañ dul wax ci xam-xam ay tappete fi nekk bañ a xeex li ci réew mi tey mooy xeex ak Macky Sall yóbbu réew mi dans le chaos Macky abal ñu ñu organiser élection yoo xam ne kenn du ne Sonko day bokk ak du bokk loolu mooy li ñu war a xeex génn reyanteeg moom mu abal ñu mu ne ma réew mi amul droit ma ne ko amul droit moo tax ñu war a xeex réew mu amul justice te dañuy xeex waaye réew mi amul juste ba noppi nga nañ teg plan B yoon li kon li ngeen ko teg tappale la ñu war bàyyi ak daw xeex bi réew mi amul plan réew mi amul justice kay xeex fi sax léegi da ngeen bàyyi ba plan B ñu foqati ko ngeen soog a xeex bañ ne plan B bi d'accord plan B bi ngeen campagne ba dem élection Macky ne maa gagné ngeen soog a génn di xeex ah ko xeex mais plan A bi di Ousmane Sonko bañ koy xañ injustement moom kenn du xeex loolu ban façon militantisme la loolu ban façon patriotisme ban façon don de soi la est ce que yéen di ngeen xalaat. Jalumuus Jalumuus fii amul xeexu suba ak gannaaw suba benn xeex fi am mooy Ousmane Sonko mooy xeexu tey bi mooy xeexu suba mooy gannaaw amuñu benn candidat Ousmane Sonko mooy suñu candidat tey ak suba gannaaw suba day bokk ci élection yi ñu gagné élection yi bokk ci élection yi ñu reyante ndey ci réew mi ba réew mi tàkk Macky abal ñu ñu doog koy élection lii mooy option bi de. xeex génn université yi école ñëpp génn ñun nangam taani ndey reyante ba Macky pousse ñu organiser élection yoo xam ne Sénégalais yee koy organiser du Macky Sall koy organiser ñooy ñooy defaraat lépp toog waxtaanee ko pencoo ko organiser élection yu leer man sama rom duma mais élection yi muy njuuj njaaj di génne ko dugal ko nañu reyante ak Macky Sall Sonko day bokk par force Sonko bu ko réew mi tàkk élection du fi am Macky Sall aba ñu ndeyam ñu organiser élection après xool ni ñu ko liggéeyante mais loolu ce sera sans Macky di wax di wax ku ci nekk di wax waaw da nga baan waaw xeex bi da ngeen dugg kaso moo tax mu leen di woo xeex wala bu ngeen xeexul élection yi Macky da koy pousse Macky ban fan lay sukkandiku ki lay wax loolu wax ku leen ko waxate laaj leen ko fan la Macky di sukkandiku pour pousse élection yi ci ban disposition légale réglementaire juridique lay taxaw pour pousse élection yi wax leen ko Macky mënut a pousse élection présidentielle mënu benn situation kese moom moo am ci réew mi Macky Sall pousse élection yi mooy situation de guerre Sénégal nekk ci guerre te bu ñu nee guerre Sénégal mënut a nekk ci guerre en interne mooy Sénégal di xeex ak Mauritanie wala Sénégal di xeex ak beneen réew réew mi nekk ci guerre réew ak réew di xeex datu élection ñëw ñu xam ne fii mënuñu fee organiser élection parce que nous sommes en guerre ci cas boobu kese la ñu mën a repousser la date des élections su boobaa Macky daf ciy concerté wu ak le conseil constitutionnel ak yenn institutions yi ba ñu xam ne la situation de guerre bi ñuy guerre Sénégal di xeex ak Mauritanie wala muy xeex ak beneen réew ñuy bombardé di xeex situation boobu kenn mënu ko def élection dañ koy aj te nekkuñ ci boobu situation beneen situation bu dul situation day am day am élection par force wala bu amul élection président bi moom dootul am mandat dootul am benn légitimité dootul dogal moom bu mandat bi jeexee dañuy abal képp ku leen ko wax waaw bu ñu xeexee ak moom mi tàkk da ciy profité pousse élection yi ku la ko wax leen ko fan lay sukkandiku pour pousse élection yi da leen wax disposition juridique bi muy jël moom Macky Sall lan moo ko may ci réew mi bu ñuy xeex ak moom ci wàllu démocratie mu mën pousse élection yi ku la ko wax laaj leen ko na la na la tontu ko loolu kenn du la ko fen ñoom ñëpp Macky Sall liggéey xeexuñu. kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen fanaan jàmm daañu dellu siwaat ci développement yi li ñëw ci ay information du jeex waaye koy benn benn incha allah rabbi jàmm ak